yéen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëggee jot suñuy publication dingeen di di abonné ci Faaida TV ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot waaye bu leen fàttee ba cloche de notification. mu poser un débat muy ki nga xam ni mooy Cheikh Omar Diagne depuis un certain temps euh, lobbyiste yi dajaloowaat ne kaa ñu dem rey ji beneen borom xam-xam comme ñun amuñu xam-xam dañoo dajaloowaat rek yor suñu paaka suñu jaas si nit du fi xalaat. nit di xool nit di image nit du réfléchir nit amul warul poser débat jëlee ci seen jaasi yooyu noonu jaasi manipulation jaasi mensonge jaasi menace jaasi ñuy wërati ne xaaral ñu rendi keneen ñi dem songati euh, Cheikh Omar jaaj Cheikh Omar Diagne bi nga xam ne dañ ko dénk liggéey mu ñëw ci mu ñëw fekk loo xam ne dañ ko buñ ko fay teg dañ ko ne rupture am lu bari lii am ay lobby yi njëkk nañ ñëw bëgg koo taqal jàllul malheureusement pour eux le xalif général des mourides son représentant ou bien ki nga xam ne mooy porte-parole génn ne bi ñun binduñu binduñu boo loo leen wax nag da ko tooñ man lettre bi lépp luy génnee fii xalif bi moo koy wax man maa yor kàddoom donc lettre bu dee day am maa ko war a bind comme bu ñu bind noonu engagé wul ñun euh, man porte parole engagé wul xalif bi engagé wul Touba mais teewul bàyyi wuñ de ñu def seeni i ne dinañ ko wàcc par la force diaboliser gëmul tariqa gëmul lii gëmul laa ñoom ñuy wax gëmul gëmuñu dara ñu ci bari duñ julli Sénégal loolu la ci neex ku la naan gëmul moom gëmul tous mbalit la rek gëmul dara loolu amul loo koy ñee boo defu naa du julli boo defu naa naan ko sàngara la boo defu ndànk njaalookat la boo defu ndànk fenkat la boo defu naa ñooy kooku di la wax naan naan kii gëmul barke alxuraan mu ngi ci tànkam ngi ci buntu safara boo ko xamul bu la yàlla wanoon tuuti tarafatal ay nit ci li muy def rek do do doo da nga koy da nga maanaam du la saf dara da xam ne kii nit ku safara la mais daf lay waaxu njëkkantu la jéem la diaboliser jéem a eh, fii fii ñu war a naw bëri ñu fii ñi gars yi wax bëri kii gëmul lii kii gëmul lii moom ci boppam gëmul dara wax waxtu yi juróomi waxtu yi sax mun du ko def respecté woo ko bu alal taxawee mu tay la yàlla donc ay lobby amoon ci loolu di ñëw palais di jël fa ay bon carburant yu dul jeex di jël ay oto gouvernement bi di yóbbu di jël ay hôtel di yii di toog foofu di njaa ba njalle di njaax di lekk ba suur naan ba màndi ay milliards sa xew bu amee ay milliards yu fay jóge bon carburant yi yenn yi dañ koy utiliser yenn yi dañ koy jaay lettre boobu yàgg nañ fa di ñëw de yàgg na fa ñëw de gars yi di dégager chaque xew ay milliards di la jox ay bon carburant di leen jox ay oto di leen jox ay chambre d'hôtel di leen jox ay suite présidentielle gars yi toog njaax lekk ba suur naan ba màndi foo caaxaan dawal oto yi jaay bon bon yenn bon yi mais gars yi dañ ciy liggéey xaalis bu dul jeex xaalis bu dul jeex la ci gars yi di am ba ñi leen di jox oto yi sax dañ ci amaale ñi leen di jox bon yi loolu réseau boo xam ne bu doy waar boo xam ne infiltré naa ko dugg ci palais xam ci détournement de deniers publics bu kéem taane moo ci am ndax dama cee liggéey koo xam ni moo yore woon loolu moo ko yore woon je l'ai en rapport ak Cheikh Omar koo xam moo yore woon loolu lobby xeex ko fa xeex ko lu ne lu na ko mais bu ma joxee document yooyu ma gis ko mais dama téeg dama ne mais lii lii day génnee pale ay milliards laa la wax xew bu ne les gars yi nag def ko nag gagne-pain di ko fa lekkee Sénégal yi ne rupture rupture lobby yi taxaw ne noo kaay ñu dem ubbi robine ba naan fa foofu lañ doon yàgg naane léegi nag fekk fa Cheikh Omar Diagne bi ñu xamal rupture ne ko fii rupture la fi am ñu ñu ne dañ koy diaboliser nag kii gëmul lii bu ko neexee bañ ko gëm bu ko neexee bañ ko gëm kenn forcé wu ko mu gëm bu la neexee nga bañ gëm yàlla <laughs> wala ku gëmul yàlla warul warul nekk ci réew mi mais bu la neexee nga bañ a gëm euh, lu la neex yaa xam loolu yow la engagé mais bokk ak dara ak yow gëm la nga gëm ak lañ la dénk mais dëkk yi nekk fii nit ñi gëmuñ dara am na ñoo xam ne fii ay seen président yi ay góor jigéen lañ ci monde bi am na ñoo xam ne seen président yi ay ay farmason lañ ci monde bi mais est-ce que dafa dañoo tax ñu sàcc seen xaalis seen xaalis askan yow mi gëm yaa dàq sàcc Sénégal bu ñuy wax gëm ñoo gën a torox ñoo gën a ñàkk ñoo gën a arrière di dellu ginnaaw ne taat mais kon nañ xool seen ngëm-ngëm nan ngay gëmee yàlla di torox di torox rek di torox di gëm yàlla di sàcc di gëm yàlla corruption fa la fekk baax di gëm yàlla fa la fen fekk baax di gëm yàlla fa la luubal fekk baax di gëm yàlla mee sa waay gëmoo da foo boo gëmoon dëgg dëgg dëgg yàlla du la toroxalee ni mu la toroxalee loo war nga xam ne yow yàlla xam na ni li ngay wax noonu moom xam na ni yow hypocrite nga moo tax sa dund munu ko changé te du ko changé parce que dëgguwoo ak moom dëgguwoo ak moom léegi Cheikh Oumar Diagne ñu sant ko loolu mu def loolu lettre bi ñëw mu delloo leen ko ne leen non jeex na Sénégal yi xeex nañ rupture lii jeex na fi delloo leen lettre bi ne moom mënatu fi amati ak keneen ku fi ñëw ak lettre dañ ko koy delloo. lobby yi génn commencé bu ko diaboliser jabo wax lu nekk ñu wax lobby lobby yu nekk Sénégal yi taxaw ne dañ foog dañ koy diaboliser. sottiwul wax nañ ba sonn sottiwul parce que yàlla moom du ànd ak fen ñu retourné waat Cheikh Omar Diagne bi génn def conférence démb conférence am di expliquer waxee xam-xam wax wax wax wax wax wax wax de expliquer ne euh, lu lu mu wax loolu yàlla moo ko wax <laughs> yàlla moo ko wax yàlla moo ne lu dul sama alxuraan bii lu fi waay def parfait wul loolu yàllaa ko wax de <laughs> du waxam de moo ne lu dul sama alxuraan bii man allah subhanahu wa taala lépp lu fi doomu aadama def bu dul yàlla mun nañ cee yokk mun nañ cee wàññi mun nañ cee joxe xalaat mais loolu nit bu la gëm looy ni beneen budul alxuraan am na mais ne ko waxoo dëgg <laughs> wala da nga di fanatique rek parce que loolu danga nga dindi waxu yàlla yàlla moom moo ne alxuraan moo ko wax moom ne rek mooy livre bu mat sëkk sëkk bu cëkkul dara boo xam ne nit du ci yokk nit du ci wàññi lépp nag lu dul livre sama alxuraan bi nit mun na ci yokk nit mun na ci wàññi nit mun na ci xalaat mais sama bos bii kese boo xam ne ci man la jóge direct rek moom lañ war